wasaare célébrité ak lii di ah, eh! Dakar Midi ñu ngi fii tamit euh, toujours si CICES ànd ak euh, waa Insub Afrique tey comme benn nit spécial nga xam ne mu ngi toj Sénégal ah lan laa dégg suñu nit ñi ko jàpp ñu ngi mais sama xarit bi maa ngi lay dolli ziar di la nuyu di nuyu sa caméraman bi di nuyu waa Sénégal gi yëpp di nuyu sama fans yi di nuyu suma papa ak suma yaay di nuyu waa Kaolack vraiment. mais gis na ne yaa ngi toj réseaux sociaux yi lan mooy secret réseaux sociaux yeeg TikTok beeg Instagram beeg Facebook beeg. xam nga loo gis ne xale koy def vraiment te dama ñëw doon xale bu ndaw gën gën a ñi ma fekk si li may li ñuy def ñun ma gën leen ko bëgg ba pare am ci fulla am ci fayda ba pare gëm sama bopp xam sama talent xam maay kan. vraiment sama papa tamit Sidi daal di ma ciy gën a jàppale après moo taxi rek muy demee ni vraiment. jaajëf tey dañ la ñëw nga classe. nice tey jii da ngaa da ngay wane ne danseur du n'importe qui. si non danseur mais danseur moom président ñoo rek parce que xam lu tax tey jii président day sol kos ma sol kos te man leer na ma ne tey jii ñun danseurs yi ñun artistes sax li ñuy sol am na ñoo xamante ne doon nañu art duñ ko sol kon ñun ay noble lañ vraiment ñun ay porte parole lañ waaw ah, ñun dañuy wax nit ñi di ñu déglu vraiment kon nag booy wax nit ñi di la déglu. mbala ngay def di jëf nit di di ci topp il faut nga correct ah loolu rek la quoi vraiment. mais yow gis nañ ni à chaque fois da ngay génne affaire sénégalais di ko jëlaat la may projet yi. waaw mooy li may wax nii rek. Ah. xam nga bi gëm sa bopp la ba pare. da nga pare pour génne ay affaire pour sénégalais yi. waaw parce que njëkk génne naa fi lu ne. waaw ah, macha allah bii mooy euh, Abou Sall jërë bi mooy sama troisième danse bu ma bu ma génnee. Hmm. parce que defoon nañ génn defoon nañ fi ay affaire. waaw waaw toj Sénégal toj Sénégal xam nga. ba tey ji yàlla dogal ma génne waat Abou Sala jëre daal di koy fecc. Hmm. comprendre nga. ndax jëre moom suma mag la te nit ku baax la. macha allah macha allah ki ñu woy noonu suma mag la quoi. ah sa mag la quoi. waaw ah, jëre suma mag la. fa la jugee. fent boobu noonu. inspiration bi ñoom. parce que sénégalais yi monde entier tubaab yi chinois yi ba ko Sidi di créé. Ah. boobu maa ngi tëdd Kaolack. mais boobu ñoom ñu ngi woon Gambie. Ah. boobu dama xawoon a feebar ba ñuy créé loolu. mais ba ñu ñibbisiwaatee Dakar. ma liggéey ci rek. macha allah di créé samay def samay création. xam waaw vraiment. <laughs> mais tey ñu gis tey lu spécial Sidy Diop na la def première partie. Mhm. Wally Seck di def di def deuxième partie. Mhm. lu rare ñëpp naan wii Sidy Diop Wally Seck jàppal Sidy Diop jàppal Wally Seck. Mhm. numéro un numéro deux noo ah mbégte la parce que tey jii. Wally sunu mag la te ku baax la. Sidy tamit rakk Wally la te nit ku baax la. liggéey rek moom solo. dafa liggéey moom it ba yegg si fii bañ koy comparer di ko boole comprendre nga sant yàlla la man dama koy féliciter di jàmbaar la ba pare góor yàlla la ba pare gëm na li muy def waaw man ci moom laa xool moo tax tey ji ma mel ni ma mel ni tey jàmbaar la te am na lu bari lu des te incha allah yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam mu yeggal yoon bi vraiment.